si na bay saaro def vérité makkee fu ko makkal ila seen nga waaw bonan ñu ko kaa ñu kaa lam su dara dina ñu ko lëg dëgg ko wala ñu ko dëgg ko dëgg ñu wala ñu ko wala xam dala ko tamali wa ci ko ñu ko dëgg ñu ko wala ci dara ko ko ñu ko ko ko ci ko ci ñu ko ñu ko dëgg ko ñu ko no la dal ko xadir mu wala ko la ci ci ndam ko dara ci ñu ko lëg أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق الناس الحق بالحق وهذه إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وقال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلم الذي الذي أمر هذا ما بلغ كريم من بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم كتب الدبور الرحمن كذلك قول بالله مجد أبيها الرحيم كذلك قول بالله جعل أخرى عما كلام لك يتصارى على من لا بنته ana lu ñuy laajante yàllaay laaj am na ba ci bés pénc yàlla bi ñu tëdd àjjuma bi bés pénc bi mag a mag moom la ñuy laaj yàlla moo laaj lu ñuy laaj lan la moo tontu ñu tontu lu ñuy laaj mooy bés pénc rek yëpp yaa ngi koy laaj ci kanam ak wet yi. ci ñoom ñu ngi koy laaj ci bëgg a am de wala am na ci lan la yëpp saa ala lu ñuy laajante ñoom yëpp rek. ane na ba ci def seen jaaraat yi ñu daga aji màgg da ci def seen ci ñoo xam ne pour ñoom kay bu na wala wute la ñu jiw ci moom mënuñu laa leen ci def seen ci wala ñoom yëfër yi yàq nañ ko ci doogu taawil kon yëfër yi ñooy yaay kay la seen jëm yàlla mooy mataawal waa di ñu ko gëm faaka xeena nga xam ne laa leen yàq lañ ko laaj kay la seen jëm kay la seen jëm yàlla wala ñoom gëmuñu ko ñii di ko taxal ñii di ko dàq wala xam ci lan la ñu def saa lu ñuy laajante ak ñoom ci ñu ne fa yan na bay ci def seen jaraaf yi ko daal di mag léegi def ba nga xam ne ñoom mu xel ko loolu wute lañu ji ci moom ji ñu ñoom gën nañ ko ñoom koy taxal di laaj kañ la yëfa ñoom nga dinañ ko ñoom ñu doon kan laa dëgg sa sa ala moom xam ne ñoo xam de wante ñoom ñu ne di def seen ci di ko laaj laaj ak yéen di yéen ci ak yeddi xam na ñoo xam de lay wàcc ci ñoom ci dëkk yi rek makkandaa takk dëgg yàlla ñoo xam na ñoo xam xam na xam na ñoo xam de saa fi la ci bind ci dëkk bi suñ jël yàlla dana ñoo xam ci te dëkk boobu dëkk bi ñëwee danañ xam lay wàcc ci ñoom seen ci ndigal de daal di indi tegtal yi kattanam li nga xam ne mooy tegtal yi yéetal alam na yàlla ndax doo suñu baax a suuf ñaareel mu dem lal ndax du yàlla bind suuf si nii bindee ko nii mu demee da ngeen mën koo defal. da ngeen nekk ci yéen dama aadama yëpp maas gannaaw maas di def loolu mën nga indi tënk yàlla wax bi baara tam def tam def dolli aw taaral ni daaj lu samp dolli. ñu ngi daal yoo xam ne ñoo tee suuf si mel ni yow mu jë jënd sa dara saaj ko waxalaat naa fi mu gën bind leen ak waa gën ngeen di xeex ñu bind leen ngeen di góor ak jigéen bind doomu aadama nit ku góor ko mu ngal ko nit ku jigéen mbaam mu góor ma mu ngal ko mbaam mu jigéen xar mu góor mu ngal ko xar xar mu jigéen nag mu góor mu ngal ko nag mu jigéen geleen bu góor lëf lum bind kàttan na ko ci lënt yëpp kàttan lu mat loolu ci ko def mën nga taxawal bés pénc wajaa naa tam def naw ma kum nelaw seen su baaxal mu di noflaay ñu ne leen yàllaa leen dindal nelaw yi nga xam ne moom ngeen di noppaloo suñ kër kër yi ba ngoon jot ku nekk sonn ku ne dem ci lalam yàlla tanu ci moom nelaw xamut bu nelaw saana jëlee wéew rek naka dinaa la wéer ci mën a nelaw loo mën da rey rey moom kenn weddi ko mu jalo moom waaye ka mën a xee ku nelaw ndax mën nga dekkal ku dee wajaa maa ko def lay la guddi li baasam muy koddaay ñeexal leen de mu defal leen guddi li ci sutura leen suturaal li ci koddaay di suturaalee yaram nga xam ne lépp loo mën nga def lii bëccëg guddi mën nga koo def kenn ko gis wajaa maa ko def naara bëccëg maa ko mu di bara ba waxtu sakkuwaay ak dund mu defal leen bëccëg bii muy sakkuwaay ak dund ñun xëy ku nekk xëy ci soxlaa bu guddee yéen nelaw ñun def loolu mën naa indi penc yàlla def ba banee naa tabax na muy ko okum sa kaw seen saban juróom-yaari asamaan ci daara yi di wëri dër bi ñu ngi tabax ci seen kaw juróom-yaari asamaan bi tiim leen te dëgër na lool su dëgëru doon daanoon na ci seen kaw dëgëru doon yàgg ak jamono jeexital na ca ci def loolu mën naa dekkal ku dee rek wa jaanaa tan def siraajan kandiya waxaajan bu ci takkaakoon mu defal leen jant bi muy lamp buy tàkk ci asamaan bëccëg bi ñëpp wa an tan naa tan wàcce ni moo siraatu ci géej gi nii maanaam ndox fa jaajan bu ci dotti haa kon de loolu de it bu ngeen soxlaa bay mu tawal leen ndox moo xam ne mu ngi bàyyi ko ci asamaan sotteeku li ma ko jëli dana génnee yii ca ndox ma abban tepp wala baatu na ay jax bu ko defee mu tawee rek dañ sax di sax loolu mooy waaw pepp daal di jógee na ngeen di ko dundee wa jannaatin afifa alfaafa ñu jooyal ko ak tool yoo xam ne tey waaw juróom kaloo rek ku nekk la ak toolam yàlla mi def loolu xam ngeen ne kattanam mat na rek kattan lu mat loolu moo tegtale yàlla am nga rek kon nag dañ jëm yàlla duñ leen wax ne dana dana koy dindi war ngeen ko woon a sikk yaam sikk dama ñëw rek inna yawmal fasli naka bés ab xasale diggante mbindee nii daana nekk loolu nii xaatam di wax pour yoon seen ak bugal de waaye ñu leen di nekk bés boo xam ne dañ leen di yisaab yéen ñëpp fay leen seeni jëf lu baax ak lu bon ku nekk dana tase jëfam de su baaxee mu taxe su bonee mu taxe ak de bés boobu la leen di nekk moo tax lu ngeen mën a def ci ndëng rek moom mu ngi leen di xëy ndax du ngeen ko raw yow ma yoon toq jëf ba def na war ci tóori ca bukka ba bés ba nga xam ne Israafil walloo nañ ko bukka ba mooy wane nam ñaareel ba ñi nga xam ne ci lañuy dakkal mbindeef yi wa saatu na da ngeen di tuur surtout di seeni bàmmeel waa jëm di ñu ngeen di kuré kuré keroog nit ñi danañ ñëw waaye ñooy waru ñu doore da ngeen ñëw ci façon yu bokkut de Muaz na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii maanaam sataatuna afwaajan yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko laaj nga lu mag daal di satiiram la ñoom sallallahu alayhi wa sallam ñaari bët yëpp satiiram la mu ne ko laaj nga lu mag yow Muaz danañ fa nga fukki xeet ci sama xeet yoo xam ne nañu di ca pénjam yàlla bi ñuy yóole ñii dañ leen di fan nga ñu di golo ñii ñu fang leen ñu di mbaam tugal ñii ñu fang leen ñu jàpp jiital seen i bopp seen tànk féete kaw ñii ñu jiital leen ñu ñu fang fang leen ñu nga tilmaxa ñaa tax luw ñaa ñu takk seen i loxo seen i tànk ñaa ñu salab leen ci xëcc ci safara ñaa seen i lam ñi di bocceeku ñu di ko saxar mi muy fëkk gëtt ñaa seen i biit di tos di génne xet goo xam ne moo moo raw xetal ñëpp ñaa ñu solal leen mbubbi comme yi godoron yoo xam ne dafa tax ci seen yaram mbubbi yu xat di tàkk ci seen kaw loolu la nit ñi ñëw tey jëm ñoom lañ xeet yooyu de mooy fa tax doon afwaajal ñun fan nga ñu di golo ñooñu ñu doon rambaaj yi di gën di ñu de ci yàqaat na ñooñu ay golo la ñu doon bi ñu ñëw koy jëm yàlla ñu ngi fang ñu di mbaam tugal mooy lekkati njar yi lekkati riba yi ñi nga xam ne dañ leen a fang ñu seen maxa mooy xaabu yi nga xam ne dañu àtte dëgg xanaa di jàng ci seen àtte ñu ngi fang ñu tëx lu mooy avancé kër yi daa jaxase ñu ñee nguur gi ñi nga xam ne dañoo dagg seen loxo dagg seen tànk mooy ku daa loxo dëkk loolu ñi nga xam ne dañuy sàqar mi seen lam ñu dëkk mooy defekat yi nga xam ne ay fenkat lañu def seen bopp fóode njëkki sa rek di fen te lañuy wax wax bu ñu ko jëfee ñi nga xam nañ ne seeni bii ta ngay yoll dëkk joo xam ne moo gën a xatee nit ñi ñëpp di leen bantu mooy topp ko ci banneex yi ñi nga xam ne dañ leen a xeew ci xëcc ci safara ñooy lekkkat yi ñooy lekkkat yi araam yi rek lekkkat yi xale bi jibi ñi nga xam nag ne dañ leen di fang sax solo leen bu bikkoon yoo xam ne ci godorom ngay jógee taxaw ko ñooñu ña doon lekk riba de munoo si taal yooyu de kenn munoo sa morom moom la wax ne yow ma ñun foofu des ba def na woon si suuri ci bukk ba parce que affaire bi da ngeen di kër wax war a gën bind di kuré kuré ñu mu def daañu ñëw ñu ne yoo xam ne ñu roowu dëkk ñoo doon topp yàlla di topp yi ñu gërëm bay yi gërëm rek ñoo ñëwoon tey juma bu melowuñ bëgg rek bu kuttiwaati taxu bi yow sama asamaan wa kaana tam nekk ab waa ban di borom yi bunt yi su ko defee asamaan bi le ñëw bi ko muy ay bën bën bën bën malaaka mu ne may nañu ko mu yàq fam tolloo ñu dem yoonam asamaan mu jini ku nekk defi bën bën gannaaw la mu defi liggéey ni lañ leen moom it dox jëm tey jëm yàlla suñu la ci tabax loo ak jibaalu doy yi ba kaana tey nekk saraaban di jëndoo doy yu rëy yi di dox ñoom it jëm tey jëm yàlla de ba mu yàgg ñoom xàgg xàgg ñu màgg tiit ma ñu far soppeeku waaw comme de naaw ci jaww ji rek doy yu mel ni mu si ñoom ñu la jahannama naka jahannama kaana nekk na mu mërsaaran di katoo di saa yi nañu ne looy ñëpp jaraw yëpp ku rek yoon yàlla yàlla am na fu mu lay tëj mooy jahannama rek maa aban di delluwaay yi nga leer suñ bàyyi koo jëkkin juma rek te jaanama leen jëm de laa bi si na mbir mun jëwee sax te ak jaanama ah aban ay jamono daa ñu sax ci jamono ci jaanama ay jamono yoo xam ne amul dayoo foofu bu mooy téeméeri at yi nekk wala juróom ñett fukki at yi nekk mu demañ ci waaye li ci mën a am ay xukk bu xukk bu lañu fay sax yoo xam ne amul dayoo laa yoo soo kon a mos ci yaa ci jaanama ba dan ay nelaw wala saraatam bi jaage nañ naan de duñ nelaw seen xel dañu ko duñ naan itam de ndax duñ naan faw ko illaa la fi nekk xam nga man loxo mujj wax a faaqal dëkk yoon ja naan daanaka naan ndax suñ jàmbatee maroor ba nga xam ne jàmbat nañ ko ay junne junne ci yàlla ñu ne dëkk yoon ja ñu lakk mu bàyyi ko ci seen dënn yi day léegi fàkk na ba moo gën a tàng seen moo gën a tàng safara yi kooku rek fi dal de te danañ ko naan nit mar wu métti wa jotaraa nit mu di fay di faaxal di daal di dëppoo ci jëf loolu nag fay la boo xam ne dëppoo naan lañ doon jëf de caay caay yee tuut kii bari weddi yàlla mu màgg mi la sàkk waaye yi mbugal gën nga màgg safara de innahum naka ñoom kaanu nekkoon nañu laa yoma ragal fii di saaba ni saab ñoom buñ waxaat seen jëf yàlla ñu def koy reer ragaluñ ko ba kër sa boo xëy weddi ba ak maa jaaw alquran su ñu ci daama nag weddi ñu weddi alquran ne du dëgg ñu ne njabar la ñu ne waaw yonent ko sof ñu ne mbuxawa la ñu ne way la ukku la say in te takk nanu lépp lépp ah bay naaw takk nan ko ci taalam ci téere te mooy lagum ma ko de takk nag dara rek ci yàlla lépp loo ma sa def loo ma sa wax yàlla bind na ko ci téereem denc ko jële bi maa ko gën a nekk def te soo ko ñëw naa leen mos leen nag mbugal maango da ngeen ñëwoon mbugal amul mos leen di ngeen doon wetti mos leen seen ak fay lan na si dakum doon si ndéem yi daana saalam na rek mbugal ci ko mbugal te du ngeen doon dara nag lu muy mbugal ci ko mbugal bu leen safara lakkee ñuy jooy jooy jooy jooy ay junne at yàlla na leen bu ngeen bëggee ma taw de ñu ne ma taw bi ñëw mu taw ci ñoom ay bëgg safara yoo xam ne bu tawee waxtu rek ñu ne ñu dellu ci lañ nekkoon moo ñu gënal suñu waa xet li ko waxee ñu ne leen tamari te ci sës seet ba ñu yóbbu leen jëf buñ fanaan wax ne safara leen gënal buñ jógee foofu ñu yóbbu leen ci néeg ay bët buñ jógee foofu ñu yóbbu leen ci mat ak ay jaan yoo xam ne dañuy day di jëlee bu tër wax di baax la seen dana dana sax ñetti téeméeri junne ci ak te gisee àlaxira mbugal ci kaw mbugal rek ñoo ko def nag yàlla mu mag muy bind ku doom ko di ko wax loolu yëpp ak tey dina leen mu tàq na naka yi nekk la ñu yàlla waaye ragal ñu yàlla waaye nag ñi nga xam ne ragal nañu yàlla te ragala jot lu mu tere ragala bay lu mu waral ñu am ren ma baax nag fexe rek ñoom dañ nekk ci barab bu ñu mucc ci yooyu adaa ta ay tool waa naa bëri ak yeneen daañu am ay tool yi gendarmerie ak ñeneen am ñëpp meññal mu seen xel bay ba kawaraa ne baax ci jànq atrafa yi di maase ak jabar yu rafet yoo xam ne ñëpp jànq lañ ku ci ne da nga toll ci jànq mu tàmbalee soxal weer te te at yooyu lay nekk jiw ak bindam du màggat te ñoom ñëpp ak maasa ñuy doon ñooy maase. kii kat bi ne ci beneen barab doon ñett fukki at ak ñett yore naa gis nañu doon fukki at ak ñeent la ñuy doon looloo gën a def boobu jot ak ñoom kat waaye su ma jënd ci ñu gaal ñu àll ndax woon boo ko wala si saa ba diggante na ay marbe booba nag kenn du ko dégg wax ci caaxaan kenn du ko dégg wax ci biir dëgg de salaama mbay la ñuy dégg yow daa am nit wuuli fay ñu ndax di ko tudd sa borom sax ab daa am nit wuuli may muy fay doo xam ne yàlla la jóge de tudde na ko fay ndax jëf jiitu na ko lu bon bon waaye dëgg-dëgg may la de ndaxte jëf bi nga jëf baax waa jana sax dañ la ko may isaaban may gu daa ci bëri de te may la boo xam ne itam bu bëri la may bu bëri may may bu amul dayo mooy ñu may la ba nga ne doyle naa de doyle naa as bu mooy doy ñu la joxee doomu aadama ñu mu xëree ñu di ko may ba mu ne bëggatuma doyle naa doyle naa loolu mooy may bu amul dayo rek rabbu samawaati ba mu asamaan yi juróom yaar wala les suuf yi juróom yaar ma bay lu ma nekk di gën di leen arahmaan mooy aji yërëm ji ci moom asamaan ak suuf alal yi ci diggante bi mooy aji yërëm ji rek moo yërëm ci tëkkoo ba nga ci daal muy di lu la yaakaarloo ci gën a boobu rahmaan laay bi ñu tànk su fekkoon baat bu nguur rahmaan lay indi waaw kon waaw jaam bi jàqare dana ko rey rek waaye nag rahmaan la tudd laayam ni koona moom ci ñoom bindee ni ñu mucc moom ci taalan ak wax kenn say ñu ko wax ak yàlla ñun bu mbëru bu mer boo xam ne kattanamamu dayoo mbinni di ñëwee wax sax pencam yàlla doo dégg kenn ku wax doo déggee baat daal tànk bu ne kott nga dégg yow ma yàqu bés ba dana taxaw roo roo firikat bi ne jibbee mu ne wala lil ci lil yàlla waaye ne see boo ne roo rek bu ko xamal wala malaayka doom malaayka yi sax tam ñu ngi koy fàtte bés ba nga xam ne roo dana taxaw mbindeef la moo xam ne ni mu mel ci malaayka yi ni malaayka yi mel ci nit ñi la ak malaaka ya ñu taxaw sappe laa yatakallamu wax bi ñu ilaa man azina laa ka digal na loo ñaan ko rahmaan waa ji yërëm de ci wax de foofa kenn du wax lu may ku yàlla ne waxal de waxaala tam wax qawlan aji jub tam wax loo xam ne jub na de mooy ñu gëm yàlla ak malaaka yi ñoom la ñuy rambuloo ñu ram itam ña nga xam ne yow nañu ramu mooy ña nga xam ne gëmoon nañu yàlla borom bakkaar yi mag yi ci jullit ñi daal ka yow boobu de bés alaaka moom moo di aju dëggu de bés boobu mooy bés bi nga xam ne daa duddal yi tabbi la de amul fit ba man saa ak soob na mu di taxaga mu jàpp ilaa rabbi jëm ci borom maa ban delluwaay koo xam ne ne bëgg naa mucc caaw ma fàkk delluwaay léegi bu bu ko musal mooy topp yàlla de inaanaka num ankarnaakum ragaloo man leen yéen ñan makka asaaban mbugal xaribal mu di aju jañin de yàlla ngeen di ragaloo mbugalam pencam yàlla jege na ndax dana ñëw lépp luy ñëw ñëw na ba noppi pencam yàlla moom bi gën a jege démb ndax démb moom doo ci ñëw waaye pencam yàlla ki nga xam ne waaw ak lu mën a dox suñu diggante moom yàgg yàgg dana ñëw sotéa daal yàlla loxoom yow nit ku nekk lu mu mas a def dem mu la demaay nag dana ca teg bëtam de tudd nay loxo ndax moo gën a bëri ci li ñu di jëfe wala xool dana wax keroog ak kaafiru néefar yàlla itam nii xelonte man kuntu ma nekk turaaban di suuf xelonte ma nekk di suuf rek ndax bu ma dajeeg li may daje tey rek bu yàlla dénkee jaam yi bàyyi may ak njaxale yantant yi lay jëkkër xisaab yanaaw loo xam ne amoon nay dund ma sa cob moromam maamu dund yàlla ne ko fayul mu fayul bàyyi ma boo xam ne amoon na dëggën di daan moromam mu amut dëggën yàlla faxal koy dëggën ne ko fayu mu fayu bañ daj mu ne leen nekk dem di suuf ñu daal di nekk di suuf suuf soosu ci lañ seen cër jaami di yàlla mayee nag bàyyi may ñoom ñu soppee ko suuf moo tax yéefar bi di ñu dëgg xelam te ñoom ñu nekk suuf naka bàyyi may ndax buñ dem tey jëm wala rek keroog ku nekk gën a mébét atraat yi yama jama sax jërëjëf doon nekk di suuf te bu mu dajee hisaab bi ndax amul lu lu ko hisaab bi indi.